acca sama gars yi seen bii di Mbobos Foot maa ngi ñaan koy gan pass bi nga abonné partagé yokk ñu doole gars yi Bamba Dieng démb marqué na na deuxième bi ca Lorient kon Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ñu koy ñaanal mu gën a ay bii parce que Lorient ba koy jënd amoon si moom yaakaar a taxoon de te Cheikh Bamba Dieng mi mi ngi commencé de mi ngi commencé gis parce que démb bii bu rafet la dugal Cheikh Ahmadou Bamba Dieng nañ leen ko ñaanal mu gën a jaloore ca lor ya parce que moom avenir la ci équipe nationale bi 22 ans kese la am moom Cheikh Amadou Bamba Dieng te nekk na ab attaquant boo xamante ni mën na football trop trop trop trop trop kon bu gënee am temps de jeu man am naa yaakaar Cheikh Amadou Bamba Dieng mi dina wane boppam dina wane boppam progressé loo xamante ni nii équipe yu mag yi dinañ ko mën a laaj parce que mën naa ni ci Olympique Marseille la jóge dem ca Lorient ta degola na deux bi mais bam fa ñëwé yagul ci 100 bi kessa la fa dem bu féké ki nga xamanteni ni di doomu Fadiga ji di Noah Fadiga Noah Fadiga momi dembu démb match bi nga xamanteni press don doon na ko football mom Noah Fadiga mi football na match bi mu def match bo xamanteni ni match bu reuy la def mom Noah Fadiga même sax ci dernière minute di nonu mom Noah Fadiga mi da ci blessé won ba génn terrain bi mais ñi ngi ñaan nak blessure bobu nonu baña nek bu graw parce que Noah nek na latéral droite boo xamante ni avenir la te man am naa yaakaar Noah Fadiga Coupe d'Afrique 2024 bi ñi nga xamante ni ñoo war a dem représenter Sénégal ca Côte d'Ivoire man am naa yaakaar Noah mi si war a bokk parce que nekk na ab booy boo xamante ni vingt et un ans kese la am te mën football trop trop trop te mën naa jël place kii nga xamante ni moo di Sabaly ginnaaw boom kon Noah Fadiga Coupe d'Afrique 2024 man jàpp naa ne moom mii dina dem parce que mi ngi def ay match yu rëy ca Ligue 1 bu France na leen ko ñaanal mu gën a defi jaloore parce que baayam di Fadiga def na histoire ci football Sénégal parce que Fadiga lu nekk defal Sénégal lu apporté na Sénégal kon bu amee doom joo xamante nii football di def ay ngan day match ci équipe am dafa jot ñu woo ko si ki nga xamante Moussa Niakhaté ginnaaw ba nga xamante ni blessé woon na blessure bu yàgg a Moussa Niakhaté match bi nga xamante ni Nottingham Forest amal ak Tottenham moom Moussa Niakhaté mi ñëwaat na defaat na retour kon Moussa a ko poste ak ki nga xamante ni moo di Fodé Ballo-Touré même Moussa Niakhaté mii sax mën naa fubal axe central ñoom Koulibaly ak Abdou Lakhat Diallo fi taxaw moom Moussa Niakhaté mën na faa fubal nañ ñaanal moom it mu a wane boppam gën a am temps Forest parce que Moussa Niakhaté Nottingham Forest ba mu koy jënd amoon si moom yaakaar a taxoon mais mën naa masala fubal daal di blessé moo mu loo xamante ni man jàpp naa ni cat moo topp parce que ca Bundesliga capitaine bi sax di la ñëw ci premier ligue bi mën naa ni deux matchs mu blessé nañ leen ko ñaanal mu gën a am temps de jeu gars yi ngi leen di ñaan ngeen abonné partager